taskatu xibaar yi police nationale daal dina def bilangu nëgandikoo ci ñàkk yi nga xam ni réew mi jot na ko am ci manifeste yi mu di ay bakkan yu ci rot waaye itam ay yàkkute am nañ ci fukki nit ak juróom-benn yu ñàkk seen bakkan ñi nga xam ni am nañ ci ay loraange ci seen alal ñu ngi ñaanal également ñi xam ne ñoo ci am ay gaañu gaañu yàlla may leen wér ba ñu delluwaat seen njaboot yi. ca geneen fànn kii di fay police nationale daal xam ne ni teg nañ loxo ay téeméeri téeméeri nit mu am ca ñu yoroon ni ngànnaay ak ñu jóge bitim réew. ñi doon manifester ñin ci jàpp te ñu mat ay téeméer lu ci bëre dañu yore woon ay ngànnaay ay cocktail molotov ay jaasi ay paaka ay armes de guerre la ñu yore woon. police nationale dem ba jàpp ni sax lile la ko sabab moo di li ñuy woowee terrorisme. li leen tax a jóg nekkul ni peut-être dañuy exprimer seen opinion wala leen lu ñu bëgg wone mais dafa dañu bëgg nasaxal institution yi. daaneel yenn yi nga xam ne ñun ñu xam ni ñuy dundee attaqué ay banque attaqué ay butigu jaamur attaqué ay alalu jaamur loolu la ñu seet si manifestation yi. la koy firndeel bu ñu sukkandikoo ci ñoom mooy vidéo yi nga xam ni xamle na ni ñu ngi ko filmé ci jàmbaarloo yi nga xam ni am na ci diggante takku der yi ak manifestant yi. lii benn ci arme à feu yi nga xamante ni mooy ngànnaay yi nga xamante ni saisir nañ ko ci ñenn ci. lii tax ba police nationale di woo askan wi ngir ñu gën a lëkkaloo ak waaye takku der yi raxte dolli di fëddaliwaat taxawaayam ngir sàmm kaaraange askan wi ak seenu alal.